tu es le père de la nation sachant que tes actes de par tes actes de ce qu'on constate tu as un patron à qui tu rencontres mais les généraux toutes ces personnes ils ne doivent rien à Ousmane Sonko parce que mm-hmm. tu l'as nommé par par décret mm-hmm. suba mm-hmm. réunion conseil de sécurité avec les généraux mais quand tu finis tu as l'obligation d'aller rendre compte à ton chef il, est difficile aux Sénégalais de croire qu'ils ont tué leur président hum. dont moi hum, hum. donc comme euh, la wax tamit nag Diomaye day rendre compte euh, euh, finance xaalis. xam naa ne moom nga gën a maîtriser. voilà moom moom moo ma gënal sax ay waxu politique Sénégal yi. Mhm. man la politique la. waaw li ñu waaw waxtu wi nag eh, eh, eh, li si des bariwul. dañ ko mhm. dañuy dañuy tënk rek boole ñaar yi. Mhm. parce que xaw na méngoo euh, moo di euh, euh, li li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko génnoon wax ci 1000 milliards yi génnaat waxaat ci ci ñaata 1 milliard 600 millions. ci kër enseignant ba. donc euh, euh, mu nek ay ay ay révélation yo xamanteni tamit voilà c'est mm. doyna na dal parce que ñu bari ne nak ñi ne ni mënu nek ñi ne nañ mën a nekk ñu koy layal amna na xamanteni nañ mm-hmm. voilà parce que euh, nekul khalis ci ci ci en espèce la la wax mais ci papier ci ci walum khalis ba tay ki di Adama fay Mm-hmm. di euh, di mën nañ ni beau frère u euh, Sall mi fi nekkoon président. Mm-hmm. génn def ay accusation moom aussi euh, ne kii di Macky Sall ak Amadou Ba seen diggante koppar moo ci nekk maanaam wàllu koppar lañu jote xaalis. Mm-hmm. loolu nek lu lu lu lu eh, benn information peut-être bo xamante ñu bari bet na len parce que ñu bari doon nañ wax digënté bi amna problème mais ñi dañuy wax trahison la ñi di wax loolu lañ doon wax mais mosuñu wax affaireu xaalis moom lañ jotee léegi Adama Faye moom génn na ne euh, euh, Macky Sall ak Adama euh, Amadou Ba ah, xaalis mo leen joté ki génn c'est-à-dire milliards rek milliards yi ñi tudd ci réew mi fi té gisunu ko ñun tamit xawna doy wa tamit eh, fi dem. gis nga Amadou Ba malheureusement son problème avec Macky Sall c'est un problème d'ordre familial côté Macky Sall. Hmm. Ah, Mansour Faye. expliqué Marème Faye Sall. Mhm. Aliou Sall. Mansour Faye Marème Faye Sall Aliou Sall. Expliquez. faites le rapprochement Aliou Sall mu avec ak Amadou Ba. oui. Mansour Faye dafa décidé moom ak euh, Mansour Faye ak Aliou Sall Vous mhm. gis c'est une sortie qui ci nek muy attaquer sa morom. Mhm. directement Aliou Sall def na émission à la RFM. muy attaqué directement Mansour Faye.

ministre yu gën a mariam Marème Faye Sall mhm. ñoo def avant les élections présidentielles pour wax ni jappalé ñom duñu jappalé d'accord. faites le rapprochement donc problème il faut la démarrer c'est entre un problème familial bo xamante Amadou Ba malheureusement en est le victime. ok je compris. donc tay vous avez une affaire politique. Mhm. mu génn di accuser Amadou Ba problème xaalis la ak yooyu non mhm. meuna nek parce que xaalis mo len c'est mhm. c'est la gestion de des des deniers publics ñom ci lañu ñuy wu durant ces 12 ans donc bu ñak rapport bu fa munti am ak lo munti wax. Mhm. l'argent est au cœur. c'est triste de le dire maintenant Adama Fay waroon na génn bu yag wax ko. waaw légui nak ay entourage à Amadou Ba ñoom nee euh, Adama Fay dafa demoon ji Mimi Touré ba mu kër Mimi Touré c'est la di génn def déclaration waaw mën na nekk parce que sénégalais yi loolu moo leen di choqué mooy lu ma doon wax léegi boo waxee ni nit sàcc la moom moo gën a yomb yàq deram que critiquer nit ci liggéeyam ni amul xam-xam mëntu mhm. looloo gën a yomb ñëw rek wax diw sàcc la Amadou Ba moom li ñu ko commencé accuser si si sàcc moom boo ko totalisé xam naa ni léegi mu téye alalu réew mi mhm. ndax ku génn ne sàcc la mhm. ku génn ne moo jël li ku génn ne moo wax lii parce que peut-être c'est quelqu'un qui a jugé bon de rester au juste milieu, mhm. d'être un opposant, un opposant d'idées et un opposant d'événements et de personnes. je le loolu moo tax mu xawa a def dépôt défaut wa APR dañuy féetale ni wa PASTEF la wa PASTEF dañuy japp ni wa APR la ba tey ci système bi la bokk ku ci Quand dañ koy attaqué mu nek au juste milieu et moi mhm. j'adore bien cette posture bu mu am mhm. je me vois plus en lui que les autres opposants parce que dama mon ni fu mu taxaw nii foofu la mhm. tey ñoo génn wax ni non dafa jël xaalis dafa sàcc nii dafa kii dafa sàcc Macky Sall da ko trahir da ko leneen mhm. man de gisuma lan la Amadou Ba war a mën a def Macky Sall mhm. lu piir que lan la Ousmane ko tegu ko man de gisuma ko lan la Ousmane Sonko dajuloo président Macky Sall ci cinq yi mujj nii gisuma lan la Amadou Ba mun ko def en moins de deux mois bu ñu ko tànnee mu nekk seen seen candidat mais la candidature de Amadou mm-hmm. mais Moustapha Niass moo ko validé. maa mm. bah oui Moustapha Niass moo leen moo moo jël Abdoulaye Daouda Diallo. Mm-hmm. moo jël euh, mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye. moo jël euh, ci si Boun Abdallah John ak Amadou Ba. moo lay entendre. pour xam kan lañ ciy tànn. donc Moustapha Niass moom moo tànn parce que fof lañu nous parce que président Macky Sall mënuloon jël décision seul parce que dafa newoon ci coalition benn bokk yaakaar ba mu bokk ak ay nawleem mm-hmm. donc heure tànn candidat pour kuy jité ce qu'il bi bu mm-hmm. par consultance lañ ko défé mm-hmm. et il en est sorti que Amadou Ba mo nek candidat mais il ne faisait pas l'unanimité au sein de la l'APR c'est les alliés ñu newoon ci benn bokk yaakaar ñoom ñoo d'accord andak Amadou Ba la preuve bo xolé tay ñoom ñoo topp Amadou Ba ci coalition am ak njëriñ mhm. PS ak yeneen parti yu newoon benn bokk yaakaar ñoom ñoo daw topp sauf waa APR donc waa APR yi d'accord ñu Ablaye Diallo Daouda Diallo wax na ko Abdou Mbow taxaw na fi mu ne Amadou Ba liggéey la rek laa la deful pour nga bañ a candidat en public <laughs> Mame Mbaye Niang dem na ci plateau wax carrément ni moom jàppalewul Amadou Ba donc loolu c'est clair ñoom ñoo waxal seen mhm. bopp mhm. ça veut dire que d'accord ci candidature Amadou Ba donc problème bi mu ngi foofu tey dinañu continuer di kii pour ñëw nak ci euh affaire 1000 milliards yi ngay wax ni mhm. euh je crois que peut-être fofu la bu mu ko waxé fa la yem mhm. gis nañu quelques personnes ño xam ne ñu ñuy fay salaire ñu doon génn jéem a justifier ni lolu mëna né mhm. mëna né euh gis ma gis euh, ministre bi waaye ñu mu tuddu El Malick la xaw ma mm. euh, voilà mm. mu voilà mu dem toog ci benn plateau mm. bu Ousmane ko waxee loolu mu ne moom mooy ñëw jéema moom mooy jéem a ñëw maquiller loolu jéem a ko defar entretenir loolu mm-hmm. ne kan moo ñu wax ni compte bi Sénégal la ne mm-hmm. ma ne ko yaa ngi gën a dugal sa bopp c'est encore piir parce que xaalis bi mënoon na fi nekk mun nañu comprendre mm-hmm. mais xaalis boo xamante ne pour génnee Sénégal alhamdulilah man dama wax ak sénégalais ñu dégg ñi xam Sénégal bu fekkee dafa amoon banque centrale am maanaam moom kese moom moom banque centrale bi mhm. lu ñu doon wax ni yëpp day am sens falsification chiffre jël xaalis génnee fi 1000 milliards génnee ko yóbbu ko bitim réew mhm. da doon am sens da doon mën a ne mais Sénégal sauf que dañu nekk ci lu ñuy wax communauté monétaire ñu am une banque centrale bu ñu bokk sekk ko bokk ko ak huit pays mhm. mm. donc huit pays yooyu noonu pour gagner autant d'argent qui masse monétaire de l'UEMOA parce que Khalis, buy circuler Sénégal moy circuler Mali moy circuler Côte d'Ivoire moy circuler Guinée-Bissau ak yeneen dëkk yu ñu ko bokkal donc xaalis bobu dañ koy nat du xaalis bo xamante ne dañuy ñëw rek def euh, création monétaire comme nous mu ñu neexee dañ koy nat en fonction de l'économie réelle de la zone monétaire mhm. donc xam nañu exactement bobu jëlee 8 pays de l'UEMOA Khalis, bu buy circuler au sein de cette économie nan la toll mhm tay même l'État, moi je te parle même pas des particuliers état du Sénégal tay bu bëggone def transaction bo xam autour de 1000 milliards. manam mhm. mënul xey rek def ko ni parce que moom mooy état lo xamante dañ koy dem discuter par euh, avec le le le collège des censeurs. Mhm. le le conseil d'administration de la banque. Mhm. ak ñepp ñoo xamante ñuy liggéey ci banque bi parce que c'est des opérations yo xamante est ci lu leer lay gën ci économie parce que ça engage l'économie de, de, de, de, de, de, de, de la communauté. Mm-hmm. Donc, lolu xel da ko xalatul manam mm-hmm. tay bo jele français fa parce que lolu lañu wax ni xaliss bi fi lañ ko satché mm-hmm. OK français fa le 1000 milliards moy presque 1 milliard et quelques d'euros 1 milliard 200 donc xaliss bobu non pour guéné ko il faut nga convertir quoi xaw ma ban dëkk la ñuy wax li ñuy jéem a expliquer Sénégal ni xaalis bi xaalis bi parce que xaalis bi voyager français CFA mënoo ko wecci ban dëkk ci àddina maanaam mun nga ko convertir mun nga ko wecc hmm. mais mënoo ko jël yóbbu ko ci beneen dëkk comme sénégalais yi bëri lu ñuy non dañ koy def ci conteneur yóbbu ko la monnaie n'a cour légal que dans la zone ou bien le pays boo xamante ne fu ñu ko créer Mm. euro mënoo ko ñëw Sénégal ngay dugg ak mom ci non mm. mm-hmm. koy convertir da bureau de change ñu ci CFA donc amna somme aéroport de mm. millions je crois ci moy plafond mm-hmm. millions après 5 millions mëno mëno ko dëkk mm-hmm. donc tay ni des manipulations par transaction li ñi jël au niveau de qui muy dem chaque fois ci même compte. Centef mhm. mu ngi fi jiaba mu ngi fi. té lool moy sen rôle yo xam c'est des des des institutions de veille yo xam yu contrôler le flux monétaire yoo xamante ne buy gëna entre te loolu yëpp mais buy gëna banque centrale tay buñu démé luñuy wax tay le solde. Mhm. tay bo jëlee la balance des paiements ci balance des paiements bo bo jëlee dañuy évaluer les transferts. moy hmm. manam xaliss buy jugee Sénégal lu ñuy transféré maanaam sénégalais yow tey mami boo buggee eh, yóndee xaalis par exemple France mhm. xaalis boobu noonu boo ko Parfois, par boo sa compte par exemple deux millions mhm. Mhm. nga bëgg yónnee kenn deux millions en France mais sa banque ngay def virement virement boobu noonu banque centrale lay jaar ñoom ñooy sogg parce que banque centrale dañuy am des avoirs par exemple à la banque de France dañ fa am ay dañ fa am en euro ou bien en dollar léegi yow fii franc CFA nga am sa mhm. Mhm. boo defee virement virement bi banque centrale lu muy def day téye xaalis parce que xaalis du génn senegal mhm. franc CFA la du génn Sénégal. boo defee virement dañuy génnee xaalis bi sa encore c'est des écritures comptables c'est pas des billets mhm. c'est de la monnaie monnaie scripturale moom lañ koy wax écriture comptable du billet mhm. maanaam léegi nga dem ci gap, ni nga gis ni sa compte amna 2 millions gars yi ñu fogné amna 2 deux millions ci billet mhm. non billet c'est juste pour faciliter les échanges d'ailleurs billets yi boo c'est dix pour cent de la masse monétaire billets yi ñuy mais quatre quatre vingt c'est de la monnaie scripturale mooy ay écriture, mm. la ce mm. là monnaie électronique mm-hmm. donc si tey boo des def virement virement bi banque centrale day téye 2 millions yi da parce que c'est la da koy téye léegi ku nga ko bëgg a France mm-hmm. Mm-hmm. banque centrale day jël l'équivalent de 2 millions en euros mu viréel ko ci compte ku que ko bëgg a France maanaam parce que am des ay euro France am ay euro foofu d'accord donc pour mën a jël 1000 fi milliards vous ko ci compte placé ko mm opération il faut que tout le temps tout le temps ci même compte mais dañ lay signaler. d'accord dëkk sax ñoko dul nangu parce que du nangu sen ci tout le temps hmm. xamuñu la finalité la preuve. Hmm. banque Santander ci affaire Azer hmm. mais indi parce que guéné par exemple euro bu ñu ko décaisser mu Sénégal convertir il faut que banque de justifier xaalis bi la a mhm. banque santander mu demander à ce que ñu wax ko parce que la BCE la banque centrale européenne nous mhm. mhm. dañuy laaj des comptes à la banque pour Sénégal mais il faut justifier parce que l'argent ne sort pas comme ça parce que Espagne dafa bokk ci Union européenne donc bépp xaalis buy jugee ci n'importe quelle banque foofu noonu buy dem ci beneen dëkk xaalis boobu dañ koy justifier dañ koy libellé. Mhm. bu fekkee c'est de l'argent qui sort pour financer un projet projet bi les dépenses là dañ koy war a justifier ba mu leer parce que xaalis. bu mhm. génnee sa dëkk maanaam yow da ngay nekk en situation de de de de manque de liquidité. Mhm. te état yi loolu la ñuy xeex pour téye seen xaalis seen dëkk. donc xaalis tey buy dem ba di génn day am motivation bu leer bu koy génnee. C'est comme ça que fonctionne la monnaie. Mais Ousmane Sonko, si vous voulez que les Sénégalais, dans bon nombre d'entre eux, maîtrisent ou ne savent pas ce qu'ils que vous voulez dire, c'est c'est 1,6 milliard, c'est une qui Bon, vous de logement, quoi. R mm. plus 1, pour nous, mm. c'est bâtiment R plus 1. Nous avons moins de 150 mètres carrés. Donc 147, si vous voulez, 147, 145. Vous avez un bâtiment, R plus 1 mooy rez-de-chaussée et premier étage premier étage ci 1000 xam nga bu doon mënoon na bañ a wax ñaata mètre carré parce que boo nee R plus 1 R plus 1 mën nga ko tabax un ba jam ñaajo ah mhm. bu waxoon ni tabax nañu R plus 1 ci 1 milliard 600 mun nañu mun nañu ne ah waxul ñaata mètre carré donc après on peut dem justifier 1 mhm. mètre carré bi tabax nañ ko fii sur euh, surface bâtie fii ak ba jam ñaajo kenn du ko dit mais boo ñëwee taxaw nga ne ci moins de 150 mètres carrés 1 milliard 600 te loo xamante ne loulou 20 millions 30 millions da koy tabax ba mu mhm. Mhm. mais quand même xanaa kay nit buy sàcc sàcc sàcc sàcc doo sàcc sàcc flagrant yooyu noonu mm. te wax na ci affaire yu bëri ay affaire de ministre parce que c'est quelqu'un quelqu' un dañ koy comprendre moom moo fi taxaw ne bu ñu ñëw ñoom maitriser wuñu état dañuy dem def séminaire de formation à Diamniadio mhm. parce que mhm. ñoom ñëpp maîtriser wuñu état mais mu ngi ci jàng. mais moom formation est ce waru njëkk def formation en communication d' abord. bon en tout communique te mu ngi wax ay waxam. loolu de mhm. xanaa xaalis réew mi jeex fa. parce que seen gouvernement bi. wax ma kan moo ci mun a communiquer. ah mais bon communique am na ñuy communiquer quand même bàyyi nañu <laughs> seen porte-parole. gouvernement ah, Abdoulaye li ngay wax am na ñuy communiquer quand même ci biir euh, gouvernement bi. ñu ñu gën a garaaw. Mhm. président la. Mhm. premier ministre. Mhm. porte-parole du gouvernement. la chef de la diplomatie sénégalaise. xanaa kay ñooñu bu amee ñu war a wax Sénégal ñoo ñooy wax mais ñoom ñeenti yëpp koo ci laal ci du ci français du ci olof catastrophe lañu. en tout cas du président du premier ministre du porte-parole du gouvernement. du la qui moi la chef de de la diplomatie. Mhm. gros calibre. mais ñoom ñëpp a yem. <laughs> mais mais ñooñu ñooñu ñooñu ils sont censés. am ci non attends attends am na ci ñoo xamante ni voilà ils sont. ils sont bien mais c'est un problème moo nek euh, bu Ousmane Sonko waxé duñ ko mëna a nous côté euh, côté communication côté communication je pense que. Cheikh Yérim lu mu wax deug la ah. mm. man dama gëm ni nit bu wóolu xam-xamam du liggéey ak Ousmane Sonko. Mm. nit bu gëm ni mën na dara. Mhm. loo liggéey ak Ousmane Sonko wala nga bëggee dëggantaan. Mhm. mais borom xam-xam dëggantaan mhm. ku respecté ni moom am na lu mu lu mu mën te diis na ci place am mun na liggéey fu ne doo liggéey ci nguur gi. mais bu ñu leen jëlee def leen ay ministre rek sa à tey jii ndaak jël ma def ma ministre te la ma war a wax ndaak wax ko. dama dama naan sama wax amatul sens bàyyi ma noppi exactement euh, parce que kenn du ko jiitu ci mbaram quand même euh, yow di euh, nga taxawaaye taxawaayu ministre de l'intérieur ministre de la justice ministre des mines mhm. ministre transport leen rek laa xam ne taxaw ko ci xanaa ministre de sport mais li ci des yëpp moom xam naa ne sport waaw mu ngi koy laal sport moom taxaw ko ci ne ko xam naa ne ministre de sport bi rek la laala bu ne ko mais sport tam ko jot dafa bànk loolu moo tax ñu dax Aliou Cissé gars yi ñoo ah. laaj ah sport